ay jafe-jafe yu Vinicius Junior am ba tey ci wér-gu-yaramam moo tax du bokk ci match bi nga xam ni Real Madrid mi ngi koy am ak Atlético Madrid derby nag di derby nga xam ne mooy ñaareel bi gën a neex gën a xumb gën a dagan fële ca championnat espagnol ginnaaw Barcelone ak équipe bile di Real Madrid loolee daanaka xam ngeen ci dara changement entraîneur bu équipe bile nga xam ne moo nekk Allemagne ki newoon na moo nekk entraîneur bu Allemagne. Mali Sénégal match boobee mënatu la am ndax li ko waral danañ ci dikk léegi Vinicius Junior ngeen gis ko noonu gone gi ñëpp di laaj ci message yi Aladji Malick TV daanaka ak di wooteeg lépp lu jëm ci gone googee di ma laaj lu ma ci xam naa ko ci wax lu ma ci xam laa ci wax du ci wax lu ma xamul information yu wér te waaye li leer ba leer moom moomee gone gi daanaka kii di entreneur bi du jël benn risque maanaam tane na mën naa dox mën naa dëgg tànk yi mën naa entraîner waaye loolu lépp nag du ci indi benn fël fëlxu kubréero da koy jël gën koo denc tànk yi gën a naggamti ko bu baax a baax bu ko defee moom moomee lépp mën a doon tawféex buy dellusiwaat ci équipe Real Madrid ndax benn match sëngam du ko jaawale ak saison bu boo xam ni su defee ay risque ci moom mën na ko indi beneen jafe-jafe moom mii mooy entraîneur Allemagne bu bees bi nga xam ne Nagelsmann lañ koy wax moo nekkoon ci ordre ki nga xam ni mooy Sadio Mané ñancoo international léegi nag équipe bu Allemagne bu jaxasoo di téppi tépp kenn xamatul foo jëm équipe bi mel ni làmb ju tas mënatul la am victoire gars yi di ko jàpp di ko noggatu di ko tëcc tëcc yoo xam ni daanaka gàcce la ci Allemagne gàcce googee moom la bëgg a dakkal gàcce nag dana am ci diggante Sénégal ak Mali ndax match ba randal nañ ko ci jàpp goo xam ne gaa ñi jàppoon nañ ko pare waaye nag gone euh, yi nga xam ne ñoo jiite kaaf xam la nan ni euh, match boobee daanaka boo amul sens nag bari na ñoo xam ne ñu ko war a mën a teewee di jëm ci euh, lu jëm ci liggéey ba ba mu mën a yemb loole li koy tee am nag mooy ñoom ñooñee dañu amu programme le 12 octobre fële ca Côte d'Ivoire programme boobee du lenn lu dul tirage bi nga xam ne kenn ku ci ne war ngaa xam fooy dóor sam ndodd fële ca Coupe d'Afrique bay am ca Côte d'Ivoire moo tax loolee dana leen jaaxal ci diggante ñaari fédéraux yi nag ñu dakkal match boobee ba jëmmi jamono